mu mën a jaar il faut ñu xam mooy droit may wax la droit noonu la mel. merci c'est dommage mais dans le monde la mel. bokkul ak mathématique nga xam ne boo dee un plus forcément deux ngay wax. merci merci c'est pas pour rien droit donc vraiment euh, c'est mel noonu. Birima alors euh, prof sa objection en 30 secondes. waaw dama doon wax rek ne. Euh, il faut euh, faut que ngeen jël en charge dimension bi bu ma doon wax mooy li ma doon wax c'est-à-dire que. li mu wax nii xam nga da def la comparaison avec la France. Mm. mais avec une différence extrêmement importante. mooy que en France xam nga culture démocratique bi. yenn réflexe yi yi nga xam ne moom ngay fii de subordination à l'autorité maanaam jëbbalu ki nga xam ne mooy préfet mooy gouverneur mooy nangam mu jaay sa ngor nangam nangam mm. mais amul en France donc culture démocratique bi installé wu na à tel point que foofu les choses peuvent mm. Mm. mais lim lay woon mooy boo ñëwee fii Jolof fii Ndoumbélaat bi sur le terrain concret réel mais ces valeurs là en dehors des grands principes yi ñuy énoncé dans les ah, universités alors ñu ñëw si deuxième partie bi léegi nii incha allah